yaa Mohamed mat Sénégal vraiment coow li bari na ci xale yi mënuñoo gagné dañ leen di dóor wax ci bari na ci loolu Aliou Cissé dafa feebar fii dañ ko mystique. waaw Aliou Cissé dafa feebar de dégg naa kilifa guñ ci tudd waaye kilifa goog ñu ci tudd gisuma ku ko gën a bëgg équipe bi te loolu ñu ciy wax tamit dara amu ci. amul dara lu ci am kenn mystique gu ko te gaynde yi suba yàlla mën na leen defal ndam. Mm. parce boo xoolee ci histoire yi football Angleterre amul dara lu mu représenté ci football su mooy championnat am parce que vers la gagné coupe du monde te ba mu koy gagné 16 équipes la woon eh. te ba football développé ba léegi amul équipe nationale Angleterre lu mos a jël ci ci ci àdduna bi Sénégal nag bi passé ñooy vice ñooy championnat d'Afrique kon nag buñ ko gëmee te dëggal seen bopp bañ a am benn complexe ci kanam Angleterre gëm naa ne mën neen dóor Angleterre ci li football wane mystique aw mystique nag am na ci biir équipe bi moom ay xeex am na ci ñoo xam ne bëggul équipe bi man dara waaye timit nañ xam ne ñoom timit xeex boobu ñuy xeex du tere ne la ñu yàlla war a may timit ñu ko may bu soobee yàlla jërëjëf mbokk internet ya di leen ndokkeel del soit ak yéen sur bii Pro Média ak seen mbokk Bour Gueweul kii du ko présenté nee naa moom sañ naa jël ci moom engagement ndax man ak moom ci jamonoy improt ëpp na ay at bay la xam jaamu yàlla jàngal Alxuraan jàngale ak di jëfe xam-xam ci anam bu set anam bu sell anam wér fii mu dëkk tey bi mu fi dëkkee ba tey toxul defe naa ne ku jub sëriñ bu sëriñ si nag dañuy changer ay logement waaye moom fekk ko Cheikh Mohamed Cheikh Mohamed sama waa ji namoon naa lool lool lool vraiment. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. buur maa la raw wax nga dëgg suñ colère gu yàgg te gisee bi gëj na gisee bu yàgg waaye nag yow loo ñu mën a ñaan rek danañ la ko may. ñu ngi wax baad auzu billahi min asheytaani rajim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajmain wala hawla wala quwata illa billahi al aliyul azim ginnaaw bu ñu santee yàlla ñu ngi lay fay nuyoo du nuyu mbooleem fu nit mën a nekk ci àdduna bi te di ñu seetaan di ñaan yàlla lépp lu ñu nar a waxtaanee yàlla na nekk njëriñeel képp ku ñu déglu bi xamati mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi noonu kon nuyoo baa ngi noonu wax naa leen ko eh, yàgg nañu lool man ak moom muy jàmbaar ci ñaan ko ci yàlla di jëfkat di ko suñu borom may wax dëgg yàlla yonent bi ñu jot a jëflante ak moom euh, xam nañ ci dara euh, Cheikh ginnaaw coowul équipe nationale bi li muy firnde rek mooy ndekete xeex ci wàllu gàllaaj dëgg-dëgg am na. buur képp ku na gàllaaj amut daf laa jàpput te benn kilifa gu mag da daan wax ne képp koo xam ne danga nga kat mooy liggéey kat jàng kat ak lépp loo xam ne dafa sant kat. te doo ñaanlu doo takk doo sangu bu yàggee daneen la aw takkale jébal la awkat bu mag bi mm-hmm. te àdduna nag képp ku fi bëgg yàgg dinaay wax ne sama maam bu ma jàngal yar ma ci diine yar ma ci lépp da wax ne nit bu toogee ñetti fan di naan ndox mu weex kese di sangoo ndox mu weex kese bu jàppee boppam nit moom moo jàppee boppam nit waaye nekkutul nit te àdduna bii ñu toll dafa nekk àdduna boo xam ne dafa jaxasoo képp ku am am na ñu taxaw pour nañ kii bum dem képp ku kuñ dénk bu ñu la dénkee la nga la dénk nga doon ci njiit am na ñu taxaw ñoo xam ne sa échec sa échec rek la ñu bëgg képp koo xam ne tamit am nga dara wala wërsëg am na ñoo xam ne lu ñu bëgg mooy nga torox te dinaay wax ne képp koo xam ne da ngay dund ci jamono ji te amoo mystique wala amoo gàllaaj gu dëgër na nga xam ne sa fan dana gàtt te doo jug ci ay tolof-tolof te doo jug ci ay gàllankoor te doo jug ci ay jafe-jafe kon taxaw ni man gëwuma gàllaaj yàlla rek a fi ne yàlla moo fi nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog xaswatul xandaq bañ taxawee yéeféer yi taxaw te yéeféer yi ëpp ko lool noon naa doyloo xelam mu sell rek ne nañ xeex ak ñoom te keroog bis boobu bu ñu xeexoon ak ñoom keroog jullit yëpp danañ leen raafal ci kaw suuf waaye dafa ol oo Salman Faris na ko yow wal Faris nga waa Iran nga bu leen xase xare mosaana bett nan ngeen def Salman na ko dañuy gas ab pax pax moo xam ne dana lëngër bi dana mat 5 mètres euh, gudd euh, xóotaay bi ci biir dana mat 10 mètres ba nga xam ne fas bu ci duggee tamit du mën a génn mooy xam na ne ñii jekku neen ko su amul xalaat wala amul pexe mu rafet du ci mën a génn moo tax nag doomu aadama bu ne man gëwuma gàllaaj yàlla laa gëm yàlla lépp loo ne yàlla du ko seetaan seetaana ko ëpp il a il les catastrophes du monde yàlla lépp loo du ko seetaan rek seetaana lu ko ëpp moo tax doomu aadama bu nekk ci àdduna war na ne yàlla laa gëm ñun ñëpp yàlla laa gëm yàlla lañ gëm yàlla lañ yaakaar waaye nag ndimbal na ca fekk loxol borom li arab bi da wax al wiqaayatu xayru min al ilaaj fagaru moo gën faju te doomu aadama bu nekk bii dund ci kaw suuf mënoo te nit ñi parce que yàlla def ñee bind ñu ànd ak xavariti yàlla bind ñu ànd ak sayaatini yàlla bind ni ñu ànd ak nit ñu bon te nit ku bon moom xamul dara lu du def yow nag boo na gaw ma dara man neen laa def ba jekku la te buñ la xasee ba jekku timit yaa ko yóbbee sa bopp moo tax doomu aadama bu mu taxaw na man gaw ma keneen ku dul yàlla yonent bi moo ne addu aw silaalu muminun ñaan mooy ngàndaayu jullit bu gëm kon nag jullit warta mante ñàkk ñaanlu su bëggee mucc ci àdduna wala bëgg dundam jag wala mu bëgg am dund goo xam ne dund gu stable la dinaay wax ne képp koo xam ne moo la ëpp lu muy xool ay mbiram moo la gën a mën a am dund gu jag képp koo xam ne moo la ëpp lu muy dem ci médecin moo la gën a mën a am santé bu jag doomu aadama nag war na gëm yàlla doyloo yàlla waaye na ñàkk boppam ba xam ne kenn du ko mën a yàq. kon nit ki ñàkk di bañ a seetlu ci boppam waaye mënut ñàkk protection sama noonu def ak ñaari point yooyu seet ak li moom mooy wàllu kaaraange man duma ko wax man xam na nettali ci làmmiñu borom la. waaw seet moom dinaa wax ne fekkee ci réew mii amul kenn ku ma ci sut mboolem koo xam ne dikkee nga ma ci wàlli seet la ma lay wax virgule du ci dañ sa tur laa soxla ak sa tur yaay ñaata at nga am toogal déglu ma lu ma lay wax dara dara dara du ci dañ seet moom aw ma ku ma ci tolloog te yonent bi da daan wax ne man xaaba man istixaara wala nadima man itisaar mun a ñaar ñi duñ perte mukk ki nga xam ne balaa dugg ci mbir daf koo seetlu ak ki nga xam ne bii dugg ci mbir dafa diisoo parce que ku diisoo di nga am yoon ku seetlu di a jëm nit am ci résultat bu mu bëgg lu dul dafa xam kii lan mooy jàngoroom ñu bëri ñi ngi ñaanlu damay ñaanlu ba sonn du ma am résultat damay ñaanlu ba sonn du am résultat parce que ka dem moo xamut lan mooy sa jàngoro te nit nag bu xamut cause jàngoro bi lii lan la du ko mën a faj parce que dina nit dana ñëw na la damaa tëju nga yëkkati gàllaaj rek jox ko da xam lan moo ko tëj nit dana ñëw na la damaa am problème da nga xool ba xam ndax cete ko jàpp nit da xool ba xam dañ koo liggéey nit da nga xool ba xam ndax dafa jéggi liggéey jàmbur nit da xool ba xam ndax dafa dëgg liggéey loolu nag loo koy mënee xam mooy ci buntu seet te man képp ku ma seetal dinaa xam sa jàngoro su ma xamee sa jàngoro fa may jaar pour jàngoro bi faju lu gaaw lay doon parce que ba jàng jotee damaa jàng ba xam jotee damaa xam ba liggéey jotee damay dem liggéey bu éeri jàng jotee dinaa jàng bu éeri bay jotee damay dem ci àll ba dem bay hmm. bay ak ñaan yàlla rek laa xam leneen lu dul loolu xaw ma ko te moo tax képp ku ma mos a ñaanal résultat am nga ko am maa nag wàlli kaaraange dinaa ci liggéey yoo xam ne am na ci loo xam ne lu ñu koy liggéey mooy ñaxi yoo xam ne dafa sax ci biir armeel buñ koy jënd am na ñu koy jëndee mm. suñ paree dañ koy booleeg doomu balu fetal ak beneen tobb boo xam ne duñ ko tudd boo baxalee ñax mi ba pare def ci doomu balu fetal bi ak tobb boobu nga sangoo ko pare nga jël ñax mi delloowaat ko ci armeel gëñal naa la ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buur képp ku la laal fa nga jëlee ñax yi delloo ko fa la laalee deen ko fa yóbbu fépp fu nga jëlee ñax yi delloo ko fa bu la laalee dañ ko fi yóbbu te boo ko sangoo bu la neexee bul sangoo ti benn kaaraange ci kaw suuf képp ku la liggéey nga jàpp ma xàcc sama kurus. la ilaha illallah xam nga ni damay wax ni man du ma wax de nettali ci làmmiñu borom la dàqee mos leen ko xool ñi ko jot a mos xam nañu sëñ bi walla ubbeeku ba ku mos nga mos ku mosul nga mos loo am mu sax te yokk. waaw ubbeeku moom ñi ci jëf laa jot a jëflanteeg man ñëpp xam neen ma ci. am na boo xam ne moom la ñu wax raw say maat wala dab say maas mooy soo bi képp kuñ koy liggéeyal da ngay jënd soo bu bees nga indi ko gëñal naa la ci Seydina Muhammad képp ku ko sangoo te yokkuwoo ñëwal laajaan ma sa xaalis ma delloo la ko buur ñaan yàlla jafewut ñàkk xam moo fi nekk mm-hmm. ak tatone ak dem ci marché bi du nungu ay dugg ndugg ay sunguf comme nii nit ñi di ndugoo bëri na ñoo xam ne avant ñi ñëw ci sëriñ lañ mënoon bañ ñëwee ci sëriñ bi bañ delloo lañ gën lañ gën lañ gën a dellu gannaaw te dinaa am na ñoo xam ne avant ñëw ci sëriñ bi mën neen téye 1000 francs bañ ñëwee ci sëriñ bi mënatuñ téye téye 100 francs te dinaa wax na taxaw benn place moom amul benn dangay dem ci kanam wala nga dellu ci ginnaaw te nit na fépp fooy dem war nga am avancement ubbeeku amul benn nit bu ma ci jëflante te doo yokk soo bi képp koo xam ne liggéeyal naa la ko nga sangoo ko ci at moom at moom wërsëg dana la yomb am-am dana la yomb xéewal dana la dikkee sarxan wa xarban ba da yaakaar ne yow rek la yàlla bindal wërsëg kooku amul kenn ku koy sangu loo tëju tëju tëju boo ko sangoo da nga am wërsëg. yàlla de bindul doomu aadama bu amul wërsëg déedéet waaye nag naka la ñuy jekkoo wërsëgam ba mën koo dimbale euh, Cheikh Mohamed dafa am xale bu ma woo tey suba ne ma dafa amoon soxna yu tubaab ñoom ñaar ñu signé woon loolu di bien commun bokk seen alal. yàlla def mook tubaab bi am problème xam naa ne bu ma seetaanee vidéo bi euh, bu mënee jege Cheikh Mamadou na ko def fu ne dem na fa tubaab bi récupéré na alalam ba mu mënatul dellusiwaat Sénégal sëriñ bu ne encaissé na ko ci wàllu noot tubaab bi ba mu récupéré alalam dara mënu sa sot waaw loolu de buur bu fi ñëwee ba yàlla def ñu boole ñi moom wala bu yàlla defee mu jekkoog man loolu dana dana ci am satisfaction xam nga nopp ñu bëri dañ koy def te gis nga jigéen bi gis mbaax benn sëriñ mënu koo nopp ba jàpp ko war boo koy nopp am na foo ko war a jaare te loolu ñu bari xamun ko jigéen boo xam ne fu mu jugee teen di gëm boo koy nopp am na ko war a noobee ak lu mu man di métti métti bu ko wanoon ginnaaw téeméeri junney at bañ dégganti ma def ci ma cay def semaine du ko mat lam jëloon ci moom yëpp mooy xabtalu ba delloo ko lam jëloon ci moom lu mu bëri bëri moom jigéen bu ma jàpp tubaab yomb na jàpp tubaab ak naan ci ndox mi naan ci dem ci ndox mi naan moom gën a yomb jàpp nit waaye yéen de siin siin siin yi de dama leen a ragal lool na ngeen mën a xalima noonu ngeen mën a yëfi dama di ceddo dama di séeréer fut naa nun def ne meege wallaay laa yim dama di dama di ceddo dama di ceddo te wax dëgg yàlla doo ko puukaru sax nit moom di ti wax fay laa bokk wala fa bokk waaye lu am solo mooy xam yaay kan ta xam li nga man te bañ cee naxante man dinaa wax na ñaan yàlla duma ma ci naxante amul benn soxla bu may nit dikkal te du ci am résultat fekkee wàllu nopp xam nga wax nga léegi wax ju am solo gis nga yitte fam yam fa la ñaan dalay buur sëñ Fallou da daan wax ne ku bëgg yax sax ci àdduna foog ngay kocc kocc wala ngay malax malax wala ngay pàcc pàcc kocc kocc mooy ab sëriñ sëriñ foog mu nangoo toog di jaamu yàlla di wérlu malax malaxi mooy sarax pàccax pàccax mooy sangu doomu aadama bu bëggee yàgg ci àdduna dana nangoo ndaw arab yi dañu wax na alxaraka baraka yëngatu dafa ànd ak barke ndaw dafa yëngatu kii yëngatu nag saafara warta gëj ci sa yaram pour li ngay yëngatu yàlla di la ko jox mag nag lu ko jig mooy jaamu yàlla parce que day jaamu yàlla yàllaay tàggat am buur mu yëkkati ab 1 million ñëw nag ko duut faj soxlam bi parce que yàllaay faj soxlam mm-hmm. ndaw nag bu bëggee fu mu nekk di am jàmm bu mu di gëj di sangoo saafara képp ku la ëpp lu muy sangoo saafara rek moo la gën a am résultat bu baax ci dundam sëñ bi nee na moom jëkkër ji borom barke la waaye moom li ko jaaxal mooy saa jëkkër ji ne salaamaaleykum nee na xol bi day mel ni dañ koy waaj a génn ndax tàngoor da koy jëppe bañ ko lool ba waaj a sori léegi mu namm ko nee na def-def la wala moom nu ñu nuy def ba dimbali ko. ñaar dana mën a nekk benn xaptal boo xam ne dañ koo def ci ron indi boo xam ne day tàng ron ënd ënd cuuraay boo xam ne day tàng mag ñi dañ ko daan liggéey danay nekk lool ñaareel bi tamit mën na nekk faru rab xam nga faru rab mën na def boo sa borom kër bu la soree nga namb ko bu ñëwee jege si la nga mel ni kuñ xaptal mel ni ku gis say butit te rab dafay phénomène boo xam ne dafa doon lu doy waar. lu naqaree fajit. Euh, man de buur rab bu mu ci man di doon man duma ko faj xam nga faj mooy loo xam ne mën nga koo def mu ñëwaat man dama koy dama koy dindi ci doomu aadama ba mu set wecc du ma ko faj. rab bu mu mënti doon semaine yàlla nga tàqli koog moom moo xam rabi cosaan moo xam bu mu ci doon. cëw di lay jox nga sang nga takk ko ak la ma lay jox nga sangoo ko ak la ngay suuroo semaine nga ko rak ak rab bu mu ti doon parce rab dafa doy waar da gis góor. mel nu mu war a mel tëdd ak jabaram ci biir néegam dugg ci biir duus masturbe boppam ba yëg bànneex moo koy gënal mu jaxasoo jabaram nga gis jigéen mel nu mu war a mel góor gu ko song ba dara desul lu du takk rek rab rabam bi la ba ngeen xuloo ngeen tàggoo nga gis mën na tee euh, euh, euh, jigéen ba nga xam ne du mën a am doom man nga nekk góor nga jugal ba dara desul lu du àgg ci kaw soxna rab rabbi dóor rabbi dóor sa rabbi dóor sa dóor sa ndigg waaw non ma loolu ma loolu am na ñu ma koy waaw rabbi dóor sa ndigg nga la pax wala boo demee ba war a dem ci moom rek dootoo man dara te boo génnaatee yëg sa bopp loolu nag rab a koy def rab bu mu ci manti doon nag man la ma lay jox semaine boo ko takkee lii nga sangoo ko semaine nga takk téere bi lii nga suuroo ko bisab keroog moom di nga tàqali ko rab même koñ ba nga dëkk sax bu fa rab nekkoon rab bi dana daw génn rab dina yàqal nit ci wërsëgam rab mën na dugg ci wërsëgu nit yàqu ko rab lu mu mënul buur amut waaye nag doomu aadama la yàlla def mooy xalifa ci kaw suuf lépp lu yàlla bind amul dara lu ci ñeme doomu aadama xam ko ñàkk koo xam te nag dafa nekk mbir moo xam ne dafay fayu boo koy fajal nit nag du doon yëfu caaxaan waaye man bu mu ci mën doon moo xam xam nga rab dana am rabu cosaan dana am rab boo xam ne lu la dugg la bu mu doon rek boo xasee ba ñëw ci man man dama koy faj dama ko dama koy dindi du ko faj man dama koy dindi mu set wecc ci yow nga tàggoog moom yor dund boo xam ne dund bi stable lay doon te mën a yàqal parce que da nga nit nekk ci kër xëy indi jikko boo xam ne dafay mere ñëpp day mere ñëpp du mën a wax ak kenn ku wax ak moom mu saaga la ku def ak moom mu indi jikko boo xam ne doo mën a xam bu ko defee ñu ne dafa réew dafa xamadi te fekk na nag rab bi rek moo koy dugg di ko. di kenn du xam loolu te xam mer wala sa alal di yàqu doo xam lan moo koy yàq wala masturbation effectivement yi nga wax ni léeg nit na ma buur yii la may def am na benn waa joo xam ne na buur man rab bi ma topp su ma jigéen nuyu woon léegi ma daanu ñu baal ma ci wax ci te daf may naqari. rab dana koy def rab rab lu mu mënti def amut. waaye képp koo xam ne yor nga ko daal bu soobee yàlla moom boo ci jëflante ñun moom xamal na rab tàggoo. c'est bon waa bitim réew nu ñuy def ba dimbali leen man ñi may jàmbat bari na buur maa ngi ci dëkk bi sama affaire dafa yàqu buur maa ngi ci dëkk bi daan naa am amatuma buur maa ngi ci dëkk bi dafa mel dañ maa jekku waa bitim réew seen jàmbat bari na. waaw jàmbat bi bari na lu ci ëpp moom yëpp. te gën leen a ñor mooy wàlli kayit parce que réew pour nga dund fa am dund bu stable foog nga am kayit kayit nag moom dinaay wax ne man fii ma dëkk teraanga gu ci suuf nga gis ko foofu nit a ko jox ci wàllu këyit mm. te nag dama koy def ci buntu amma bi nahmati rabbika fa hadis bu leen yàlla mayee mbaax ak yiw ak ci teraanga na ngeen koy waxtaanee yàlla mosuma gàcceel ci nit koo xam ne dafa bëgg këyit ba yàlla def ñu dégganti jëflante ci yàlla mosuma gàcceel ci lool ba tey tamit danga gis ñoo xam ne danañ am waaye lu ñu am du mën a toog ci seen loxo yi Euh, olof di ko daan wax teme bu teme bu yu teme xaw ma mooy lépp loo am rek lu mën a toog sa loxo yi loxo bu bën na loolu am na ci loo xam ne dañ koy liggéey buñ koy liggéey bisu dimanche lañ bisu dimanche nga koy sangoo bu soobee yàlla lépp loo am dina des sa loxo yi te sa alal bépp alal boobu manti doon amul benn mbindeef boo xam ne mën na cee dugg ba yàqal la ci ba nga xam ne da nga ci gis yàqute yàqute doo ko gis sa alal te lépp loo am da ko mën a jëriñoo te da nga xam foo koy def te wàlli kay timit képp ku ñu jëflante da nga ko am bu soobee yàlla sama laaj mujj li tëggaay gars yi léeg-léeg ñu mos mu tane ñu defee ni waaj ay na muy wàllu ngóora di problème bu complexe. waaw ngóora de ñun yàlla dimbale nañ ci dinaay wax ne képp koo xam ne yàlla dimbale nga ba nga jëflante ceeg maag yow te lañ lay jox tamit du doon loo xam ne dafay indi effet secondaire ci yow boo ko naanee daal jàpp naa ne lii ñuy wax mbaam bu soobee yàlla yaa koy gën a am kattan bu soobee yàlla. kattan kattan ga nga amoon heure boo xëyee fekkee dañ la doon xeelu. ba nga fexe ba naan ko ba ba ba sëq ak ndaw si boo xëyee danga nga ndekki ndekki lu neex. moom sunguf la wala reen wala. waaw ay du ay sunguf la waaye ay bio lañ ko liggéey yoo xam ne palante yoo xam ne du am benn efe secondaire xam nga Omar Khaysu daf daan wax ne mun a jigéen ñaar la gën a bëgg ci àdduna benn bi mën na koo muñ waaye benn bi mën koo muñal benn góor ci àdduna mooy alal ak bànneex alal góor gu ko ñàkk sa jabar mën na la koo muñal parce que am ak ñàkk ñoo nekk ci àdduna tey da ngay am nga ñàkk waaye kattan mënu koo muñal benn góor ci àdduna moo xam sëriñ nga moo xam ministre moo xam xutbu zaman moo xam loo manti doon waaye jigéen moom kattan amut kenn ku ko mën a muñal te góor dëgg ci biir këram mooy góor goo xam ne dafa yëg boppam te waxtu wu jaxasoog jabaram jabaram yëg ne kii ma jaxasoog satisfaire na ko te loolu nag képp koo xam ne daf laa dal ba nga xam ne da nga am new kattan boo ñëwee lu ñu lay jox nga naan ko moom du yem ci naan boo xam ne da koy naan rek pour dem ci combat daf lay dafay raxas sa deret ba nga xam ne foo mën di toog loo boo xalaatee sa rek da yëg sa bopp xalaat rek defee da nga yëg sa bopp te képp koo jaxasoog tamit da nga gis ne da nga ko satisfaire ba nga xam ne boo xëyee moom yaakaar naa ne ndekki lu neex da nga ko ndekki bu soobee yàlla macha allah Cheikh Mohamed lay tàggoo waaw tàggatoo bi de ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm suñu gars yi beneen jotaay nag de waaw yow de suñu xariñ nga boo ñu ko ñaa boo ñu ko ñaanee daal bu fekkut ñu delluwaat ci tool yi hmm. continuer liggéey bi dem ci tool yi nag moom sëñ moom fi mu ne doy na nag gaa gi ngi deq nañ gerte gi ba bàcc ngooñ meeg gunay daara ji gune yaa ngay cali cali fi mu ne moom mën nga fay toog ba ci kanam gone yaa ngi cale-cale waaye xaal ba tamit ma ngi fa foog ñu dem euh, continuer yooyu yëpp euh, mottali liggéey bi xam nga adduna moom jaamu yàlla ak liggéey moo am bu waxtu liggéey jotee na nga dem liggéey bu waxtu jaamu yàlla jotee na nga ñëw dimbale ask euh, dimbale dimbale dimbale nit ñi ñi ngi tàggu ñëpp moo xam bay rek lépp lu mu ci man doon rek képp koo xam ne ñëw nga ci jëflante ci ñun lépp lu yittee doomu aadama daal bu fi doomu aadama ñëwee dinaay wax ne maa ngi damay ñaan yàlla toujours bu ma jullee képp ku yàlla nar ta faj sa soxla yàlla boo ma dégg te yàlla boo ma gis te képp ku ma dégg nag soxla boo man di am yàlla fexe ba nga dégg ma amal yëqin na soxla boobu nga ma déggee yàlla dana ko faj man ku ma ku ma ku ma dégg rek yàlla faj sa soxla waaye ku ma narta dégg yàlla du faj soxla bu la yàlla naree faj sa soxla dana la xaptal ba nga oo ma te boo ma ooyee tamit sa soxla dana faju ak soxla bu mu mënti doon jërëjëf mbokk internet ya maa ngi leen di di leen ndokkeel del soit ak yéen sur Bprod Media ak seen mbokk Bour Gueweul kii du ma ko présenté nee naa moom sañ naa jël ci moom engagement ndax man ak moom ci jamonoy import ëpp na ay at bay la xam jaamu yàlla jàngal Alxuraan jàngale ak di jëfe xam-xam ci anam bu set anam bu sell anam wér fii mu dëkk tey bi mu fi dëkkee ba tey toxul defe naa ni ku jub sëriñ bu sëriñ si nag dañuy changer ay logement waaye moom fekk ko Cheikh Mohamed Cheikh Mohamed Diop sama waa ji namoon naa la lool lool lool vraiment. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. buur maa la raw. wax nga dëgg suñ kóllëre gu yàgg nga te gisee bi gëj na ne gisee bu yàgg waaye nag yow loo ñu mën a ñaan rek danañ la ko may ñu ngi wax baad auzu billahi min asheytaani rajim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa radiallahu taala an ashaabi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ajmain wala hawla wala quwata illa billahi al aliyul azim ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi lay fayu nuyoo du nuyu mbooleem fu nit mën a nekk ci àdduna bi te di ñu seetaan di ñaan yàlla lépp luñ nar a waxtaanee yàlla nekk njëriñ képp ku ñu déglu bi ximati mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi noonu kon niyoo baa ngi noonu wax naa leen ko euh, yàgg nañu lool man ak moom muy jàmbaar ci ñaan ko ci yàlla di jëf jëfkat di ko sunu borom may wax dëgg yàlla yonent bi ñu jot a ak moom euh, xam nañ ci dara euh, Cheikh Mohamed ginnaaw coowul équipe nationale bi li muy firnde rek mooy ndekete xeex ci wàllu gàllaaj dëgg-dëgg am na daf laa jàpput te benn kilifa gu mag da daan wax ne képp koo xam ne danga nga kat mooy liggéey kat jàng kat ak lépp loo xam ne dafa sant kat te doo ñaanlu doo takk doo sangu bu yàggee daneen la aw takkale jébal la aw kat bu mag bi te àdduna nag képp ku fi bëgg yàgg dinaay wax ne sama maam bu ma jàngal yar ma ci diine yar ma ci lépp da wax ne nit bu toogee ñetti fan di naan ndox mu weex kese di sangoo ndox mu weex kese bu jàppee boppam nit moom moo jàppee boppam nit waaye nekkutul nit te àdduna bii ñu toll dafa nekk adduna boo xam ne dafa jaxasoo képp ku am am na ñu taxaw pour nañ ci bum dem képp kuñ dénk buñ la dénkee la nga la dénk nga doon ci njiit am na ñu taxaw ñoo xam ne sa échec sa échec rek la ñu bëgg képp koo xam ne tamit am nga dara wala wërsëg am na ñoo xam ne lu ñu bëgg mooy nga torox te dinaay wax ne képp koo xam ne da ngay dund ci jamono jii te amoo mystique wala amoo gàllaaj gu dëgër na nga xam ne sa fan dana gàtt te doo jug ci ay tolof tolof te doo jug ci ay gàllankoor te doo jug ci ay jafe-jafe. kon taxaw ni man gëwuma gàllaaj yàlla rek a fi ne. yàlla moo fi nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog xaswatul xandaq bañ taxawee yéeféer yi taxaw te yéeféer yi ëpp ko lool. noon naa doyloo xelam mu sell rek ne nañ xeex ak ñoom te keroog bis boobu bu ñu xeexoon ak ñoom keroog jullit yëpp danañ leen raafal ci kaw suuf waaye dafa ol oo Salman Faris na ko yow wal Faris nga waa Iran bu leen xase xare mosaana bett nan ngeen def seulement na ko dañuy gas ab pax pax moo xam ne dana lëngër bi dana mat 5 mètres euh, gudd euh, xóotaay bi ci biir dana mat 10 mètres ba nga xam ne fas bu ci duggee tamit du mën a génn li tax lool mooy xam na ne ñii jekku neen ko su amul xalaat wala amul pexe mu rafet du ci mën a génn moo tax nag doomu aadama bu ne man gëwuma gàllaaj yàlla laa gëm yàlla lépp loo ne yàlla du ko seetaan seetaana lu ko ëpp il a il a assisté tous les catastrophes du monde yàlla lépp loo ne du ko seetaan rek seetaana lu ko ëpp moo tax doomu aadama bu nekk ci àdduna war na ne yàlla laa gëm ñun ñëpp yàlla laa gëm yàlla lañ gëm yàlla lañ yaakaar waaye nag ndimbal na ca fekk loxol borom li arabi di wax al wiqayatu xayru min al ilaaj fagaru moo gën faju te doomu aadama bu nekk bii dund ci kaw suuf mënoo te nit ñi parce que yàlla def ñee bind ñu ànd ak xavaarit yi yàlla bind ñu ànd ak sayaatini yàlla bind ñu ànd ak nit ñu bon te nit ku bon moom xamul dara lu du def yow nag boo na gaw ma dara man neen laa def ba jekku la te buñ la xasee ba jekku timit yaa ko yóbbee sa bopp moo tax doomu aadama bu mu taxaw na man gaw ma keneen ku dul yàlla yonent bi moo ne addu aw silaalu muminun ñaan mooy ngàndaayu jullit bu gëm kon nag jullit warta mënta ñàkk ñaanlu su bëggee mucc ci àdduna wala bëgg dundam jàkk wala mu bëgg am dund goo xam ne dund gu stable la dinaay wax ne képp koo xam ne moo la ëpp lu muy xool ay mbiram moo la gën a mën a am dund gu jàkk képp koo xam ne moo la ëpp lu muy dem ci médecin moo la gën a mën a am santé bu jàkk doomu aadama nag war na gëm yàlla doy loo yàlla waaye na ñàkk boppam ba xam ne kenn du ko mën a yàq. kon nit ki ñàkk di bañ a seetlu ci boppam waaye mënut a ñàkk protection sama noonu def ak ñaari point yooyu seet. ak li xam moom mooy wàllu kaaraange man du ma ko wax man xam na nettali ci làmmiñu borom la. waaw seet moom dinaa wax ne fekkee ci réew mii amul kenn ku ma ci sut mboolem koo xam ne dikke nga ma ci wàlli seet la ma lay wax virgule du ci dañ sa tur laa soxla ak sa tur yaay ñaata at nga am toogal déglu ma lu ma lay wax dara dara dara du ci dañ seet moom aw ma ku ma ci tolloog te yonent bi sallallahu alayhi wax ne man xaaba man istixaara wala nadima man itisaar mun a ñaar ñi duñ perte mukk ki nga xam ne balaa dugg ci mbir daf koo seetlu ak ki nga xam ne bii dugg ci mbir dafa diisoo parce que ku diisoo di nga am yoon ku seetlu di a jëm ñaanal nit am ci résultat bu mu bëgg lu dul dafa xam kii lan mooy jàngoroom ñu bëri ñi ngi ñaanlu damay ñaanlu ba sonn du am résultat damay ñaanlu ba sonn du am résultat parce que ka dem moo xamut lan mooy sa jàngoro te nit nag bu xamut cause yi jàngoro bi lii lan la du ko mën a faj parce que dina nit dana ñëw na la damaa tëju nga yëkkati gàllaaj rek jox ko da xam lan moo ko tëj nit dana ñëw na la damaa am problème danga xool ba xam ndax cete ko jàpp nit da xool ba xam ndax dañ koo liggéey nit da nga xool ba xam ndax dafa jéggi liggéey jàmbur nit da xool ba xam ndax dafa dëgg liggéey loolu nag loo koy mënee xam mooy ci buntu seet te man képp ku ma seetal dinaa xam sa jàngoro su ma xamee sa jàngoro fa may jaar pour jàngoro bi faju lu gaaw lay doon parce que ba jàng jotee damaa jàng ba xam jotee damaa xam ba liggéey jotee damay dem liggéey bu heure jàng jotee dinaa jàng bu heure bay jotee damay dem ci àll ba dem bay hmm. bay ak ñaan yàlla rek laa xam leneen lu dul loolu xaw ma ko te moo tax képp ku ma mos a ñaanal résultat am nga ko am maa nag wàlli kaaraange dinaa ci liggéey yoo xam ne am na ci loo xam ne lu ñu koy liggéey mooy ñaxi yoo xam ne dafa sax ci biiri armeel bu ñu koy jënd am na ñu koy jëndee mm. suñ paree dañ koy booleeg doomu balu fetal ak beneen tobb boo xam ne duñ ko tudd boo baxalee ñax mi ba pare def ci doomu balu fetal bi ak tobb boobu nga sangoo ko pare nga jël ñax mi delloowaat ko ci armeel gëñal naa la ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buur képp ku la laal fa nga jëlee ñax yi delloo ko fa la laalee deen ko fa yóbbu fépp fu nga jële ñax yi delloo ko fa bu la laalee dañ ko fi yóbbu te boo ko sangoo bu la neexee bul sangoo ti benn kaaraange ci kaw suuf képp ku la liggéey nga jàpp ma xàcc sama kurus. la ilaha illallah xam nga ni damay wax ni man du ma wax de nettali ci làmmiñu borom la dàqe mos leen ko xool ñi ko jot mos xam nañu sëñ bi walla ubbeeku ba ku mos nga mos ku mosul nga mos loo am mu sax te yokk. waaw ubbeeku moom ñi ci jëf laa jot a jëflanteeg man ñëpp xam neen ma ci. am na boo xam ne moom la ñu wax raw say maat wala dab say maas mooy soo bi képp ku ñu koy liggéeyal da ngay jënd soo bu bees nga indi ko gëñal naa la ci Seydina Muhammad képp ku ko sangoo te yokkuwoo ñëwal laajaan ma sa xaalis ma delloo la ko buur ñaan yàlla jafewut ñàkk xam moo fi nekk mm-hmm. ak tatone ak dem ci marché bi du nungu ay dugg dugg ay sunguf comme ni nit ñi di ndugoo bari na ñoo xam ne avant ñi ñëw ci sëriñ lañ mënoon bañ ñëwee ci sëriñ bi bañ delloo lañ gën lañ gën a delloo gannaaw te dinaa am na ñoo xam ne avant ñëw ci sëriñ bi mën neen tée mille francs bañ ñëwee ci sëriñ bi mënatuñ tée tée te dinaay wax na taxaw benn place moom amul benn dangay dem ci kanam wala nga dellu ci ginnaaw te nit na fépp fooy dem war nga am avancement ubbeeku amul benn nit bu ma ci jëflante te doo yokk soo bi képp koo xam ne liggéeyal naa ko nga sangoo ko ci at moom at moom wërsëg dana la yomb am am dana la yomb xéewal dana la dikkee sarxan wa xarban ba da ngay yaakaar ne yow rek la yàlla bindal wërsëg kooku amul kenn ku koy sangu loo tëju tëju tëju boo ko sangoo da am wërsëg waaye yàlla de bindul doomu aadama bu amul wërsëg déedéet waaye nag naka lañuy ñuy jekkoo wërsëgam ba mën koo dimbale euh, Cheikh Mohamed dafa am xale moo woo tey suba ne ma dafa amoon soxna yu tubaab ñoom ñaar ñu signé woon loolu di bien commun bokk seen alal yàlla def mook tubaab bi am problème xam naa ne bu ma seetaanee vidéo bi euh, bu mënee jege Cheikh Mohamed na ko def fu ne dem na fa tubaab bi récupéré na alalam ba mu mënatul dellusiwaat Sénégal sëriñ bu ne encaissé na ko ci wàllu noot tubaab bi ba moom mu récupéré alalam dara mënu sa so waaw loolu de buur bu fi ñëwee ba yàlla def ñu boole ñeeg moom wala bu yàlla defee mu jekkoog man loolu dana dana ci am satisfaction xam nga nopp ñu bëri dañ koy def te xamul gis nga jigéen bi gis mbaax benn sëriñ mënu koo nopp ba jàpp ko war boo koy nopp am na foo ko war a jaare te loolu ñu bari xamuñ ko jigéen boo xam ne fu mu jugee teen di gëm boo koy nopp am na noo ko war a noobee ak lu mu man di métti métti bu ko wanoon ginnaaw téeméeri junne at bañ dégganti ma def ci ma cay def semaine du ko mat lam jëloon ci moom yëpp mooy xabtalu ba delloo ko lam jëloon ci moom lu mu bëri bari moom jigéen bu mooy jàpp tubaab yomb na jàpp tubaab ak naan ci ndox mi naan ci dem ci ndox mi naan moom gën a yomb jàpp nit waaye yéen de siin siin siin yi de dama leen a ragal lool na ngeen mën a xalima noonu ngeen mën a yëfi séeréer dama di ceddo dama di séeréer fut naa nun def ne meege wallaay laa yim dama di dama di ceddo dama di ceddo te wax dëgg yàlla doo ko puukar sax nit moom di yëkkati wax fay bokk wala fa bokk waaye lu am solo mooy xam yaay kan ta xam li nga man te bañ cee naxante man dinaa wax na ñaan yàlla duma ma ci naxante amul benn soxla bu may nit dikkal te du ci am résultat fekkee wàllu nopp xam nga wax nga léegi wax ju am solo gis nga yitte fam yam fa la ñaan dalay buur sëñ Fallou da daan wax ne ku bëgg yax sax ci àdduna foog ngay kocc kocc wala ngay malax malaxi wala ngay pacc pacc kocc kocc mooy ab sëriñ sëriñ foog mu nangoo toog di jaamu yàlla di wérlu malax malaxi mooy sarax paccax paccax mooy sangu doomu aadama bu bëggee yàgg ci àdduna dana nangoo ndaw arab yi dañu wax na alxaraka baraka yëngatu dafa ànd ak barke ndaw dafay yëngatu kii yëngatu nag saafara warta gëj ci sa yaram pour li ngay yëngatu yàlla di la ko jox mag nag lu ko jig mooy jaamu yàlla parce que day jaamu yàlla yàllaay tàggat am buur mu yëkkati ab 1 million ñëw nag ko duut faj soxlam bi parce que yàllaay faj soxlam ndaw nag bu bëggee fu mu nekk di am jàmm bu mu di gëj di sangoo saafara képp ku la ëpp lu muy sangoo saafara rek moo la gën a am résultat bu baax ci dundam bi soxna nee na moom jëkkër ji borom barke la waaye moom li ko mooy saa jëkkër ji ne salaamaaleykum nee na xol bi day mel ni dañ koy waaj génn ndax tàngoor da koy jëppe bañ ko lool ba waaj sori léegi mu namm ko nee na def def la wala moom nu ñu nuy def ba dimbali ko. ñaar dana mën a nekk benn xabtal boo xam ne dañ koo def ci ron indi boo xam ne day tàng ron ënd ënd cuuraay boo xam ne day tàng mag ñi dañ ko daan liggéey danay nekk lool ñaareel bi tamit mën na nekk faru rab xam nga faru rab mën na def boo sa borom kër bu la soree nga namb ko bu ñëwee jege si la nga mel ni kuñ xabtal mel ni ku gis say butit te rab dafay phénomène boo xam ne dafa doon lu doy waar. lu naqaree fajit. man de buur rab bu mu ci man di doon man duma ko faj xam nga faj mooy loo xam ne mën nga koo def mu ñëwaat man dama koy dama koy dindi ci doomu aadama ba mu set wecc du ma ko faj. rab bu mu mënti doon semaine yàlla nga tàqli koog moom moo xam rabi cosaan moo xam bu mu doon. cëw di nga ma lay nga sang nga takk ko ak la ma lay jox nga sangoo ko ak la ngay suuroo semaine nga ko rak ak rab bu mu mënti doon parce rab dafa doy waar da gis góor. mel nu mu war a mel tëdd ak jabaram ci biir néegam dugg ci biir duus masturbe boppam ba yëg bànneex mm-hmm. moo koy gënal mu jaxasoog jabaram nga gis jigéen mel nu mu war a mel góor gu ko song ba dara desul lu du takk rek rab rabam bi xabtal la ba ngeen xuloo ngeen tàggoo nga gis mën na tee euh, euh, euh, jigéen ba nga xam ne du mën a am doom man nga nekk góor nga jugal ba dara desul lu du àgg ci kaw soxna rab rabbi dóor rabbi door sa rabbi dóor sa door sa ndigg waaw non ma loolu ma loolu am ñu ma koy waaw rabbi door sa ndigg nga la pax wala boo demee ba war a dem ci moom rek dootoo man dara te boo génnaatee yëg sa bopp loolu nag rab a koy def rab bu mu ci manti doon nag man la ma lay jox semaine boo ko takkee li nga sangoo ko semaine nga takk téere bi lii nga suuroo ko bisab keroog moom di nga tàqali ko rab même koñ ba nga dëkk sax bu fa rab nekkoon rab bi dana daw génn. rab dina yàqal nit ci wërsëgam. rab mën na dugg ci wërsëgu nit yàqu ko rab lu mu mënul buur amut waaye nag doomu aadama la yàlla def mooy xalifa ci kaw suuf lépp lu yàlla bind amul dara lu ci ñeme doomu adama xam ko ñàkk koo xam te nag dafa nekk mbir moo xam ne dafay fayu boo koy fajal nit nag du doon yëfu caaxaan waaye man bu mu ci man doon moo xam xam nga rab dana am rabu cosaan dana am rab boo xam ne lu dugg la bu mu ci man di doon boo xasee ba ñëw ci man man dama koy faj dama ko koy dindi du ko faj man dama koy dindi mu set wecc ci yow nga tàggoog moom yor dund boo xam ne dund bu stable lay doon te mën a yàqal parce que da gis nit nekk ci kër xëy indi jikko boo xam ne dafay mere ñëpp day mere ñëpp du mën a wax ak kenn ku wax ak moom mu saaga la ku def ak moom mu indi jikko boo xam ne doo mën a xam bu ko defee ñu ne dafa réew dafa xamadi te fekk na nag rab bi rek moo koy dugg di ko. di kenn du xam loolu tax a wala sa alal di yàqu doo xam lan moo koy yàq wala masturbation effectivement yi nga wax ni léeg nit na ma buur yii la may def am na benn waajoo joo xam ne na buur man rab bi ma topp su ma jigéen nuy woon léegi ma daanu ñu baal ma ci wax ci te daf may naqari. rab dana koy def rab rab rab lu mu mënti def amut waaye képp koo xam ne yor nga ko daal bu soobee yàlla moom boo ci jëflante ak ñun moom xamal na rab tàggo waa bitim réew nu ñuy def ma dimbal leen man ñi may jàmbat bari na buur maa ngi ci dëkk bi sama affaire dafa yàqu buur maa ngi ci dëkk bi daan naa am amatuma buur maa ngi ci dëkk bi dafa mel dañ maa jekku waa bitim réew seen jàmbat bari na waaw jàmbat bi bari na lu ci ëpp moom yëpp te gën leen a ñor mooy wàlli kayit parce que réew pour nga dund fa am dund bu stable foog nga am kayit kayit nag moom dinaay wax ne man fii ma dëkk teraanga gu ci suuf nga gis ko foofu nit a ko jox ci wàlli kayit mm. te nag dama koy def ci buntu amma bi nahmati rabbika fa hadis bu leen yàlla mayee mbaax ak yiw ak teraanga na ngeen koy waxtaanee yàlla mosuma gàcceel ci nit koo xam ne dafa bëgg kayit ba yàlla def ñi dégganti jëflante ci yàlla mosuma gàcceel ci loolu ba tey tamit da nga gis ñoo xam ne danañ am waaye lu ñu am du mën a toog ci seen loxo yi Euh, olof di ko daan wax teme bu teme bu yu teme yuréet xaw ma mooy lépp loo am rek du mën a toog sa loxo yi loxo bu bën loolu am na ci loo xam ne dañ koy liggéey buñ koy liggéey bisu dimanche lañ bisu dimanche nga koy sangoo bu soobee lépp loo am dina des sa loxo yi te sa alal bépp alal boobu manti doon amul benn mbindeef boo xam ne mën na cee dugg ba yàqal la ci ba nga xam ne da nga ci gis yàqute yàqute doo ko gis sa alal te lépp loo am da ko mën a jëriñoo te da nga xam foo koy def te wàlli kay timit képp ku ñu jëflante da nga ko am bu soobee yàlla Cheikh Mohamed sama laaj mujj li tëggaay gars yi léeg-léeg ñu mos mu tane ñu defee ni waaj ay na muy wàllu ngóora di problème bu complexe. waaw ngóora de ñun yàlla dimbale nañ ci dinaay wax ne képp koo xam ne yàlla dimbale nga ba nga jëflante ceeg maag yow te lañ lay jox tamit du doon loo xam ne dafay indi effet secondaire ci yow boo ko naanee daal jàpp naa ne lii ñuy wax mbaam bu soobee yàlla yaa koy gën a am kàttan bu soobee yàlla kattan kattan ga nga amoon heure boo xëyee fekkee dañ la doon xeelu. ba nga fexe ba naan ko ba ba ba sëq ak ndaw si boo xëyee da nga ndekki ndekki lu neex. moom sunguf la wala reen wala lu ay du ay sunguf la waaye ay bio lañ ko liggéey yoo xam ne palante yoo xam ne du am benn effet secondaire xam nga Omar Khaysu daf daan wax ne mun a jigéen ñaar la gën a bëgg ci àdduna benn bi mën na koo muñ waaye benn bi mën koo muñal benn góor ci àdduna mooy alal ak bànneex alal góor gu ko ñàkk sa jabar mën na la koo muñal parce que am ak ñàkk ñoo nekk ci àdduna tey da ngay am nga ñàkk waaye kattan mënu koo muñal benn góor ci àdduna moo xam sëriñ nga moo xam ministre moo xam xutbu zaman moo xam loo manti doon waaye jigéen moom kattan amul kenn ku ko mën a muñal te góor dëgg ci biir këram mooy góor goo xam ne dafa yëg boppam te waxtu wu jaxasoog jabaram jabaram yëg ne kii ma jaxasoog satisfaire na ko te loolu nag képp koo xam ne daf laa dal ba nga xam ne da nga am new kattan boo ñëwee lu ñu lay jox nga naan ko moom du yem ci naan boo xam ne da koy naan rek pour dem ci combat daf lay dafay raxas sa deret ba nga xam ne foo mën di toog loo boo xalaatee sa rek da nga yëg sa bopp xalaat rek boo ko defee da nga yëg sa bopp te képp koo jaxasoog tamit da nga gis ne da nga ko satisfaire ba nga xam ne boo xëyee moom yaakaar naa ne ndekki lu neex da nga ko ndekki bu soobee yàlla macha allah Cheikh Mohamed lay tàggoo waaw tàggatoo bi de ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm suñu gars yi beneen jataay nag de waaw yow de suñu xarit nga boo ñu ko ñaa boo ñu ko ñaanee daal bu fekkut ñu delluwaat ci tool yi euh, continuer liggéey bi dem ci tool yi nag moom sëñ moom fi mu ne na nag gaa ngi deq nañ gerte gi ba bàcc ngooñ meeg guney daara ji gune yaa ngay cale-cale fi mu ne moom mën nga fay toog ba ci kanam waaye gune yaa ngay cale-cale waaye xaal ba tamit ma nga fa foog ñu dem euh, continuer yooyu yëpp euh, mottali liggéey bi xam nga àdduna moom jaamu yàlla ak liggéey moo bu waxtu liggéey jotee nanga dem liggéey bu waxtu jaamu yàlla jotee nanga nga ñëw dimbale ask dimbale dimbale dimbale nit ñi ñi ngi tàggu ñëpp moo xam bay rek lépp lu mu ci man doon rek képp koo xam ne ñëw nga ci jëflante ci ñun lépp lu yittee doomu aadama daal bu fi doomu aadama ñëwee dinaay wax ne maa ngi damay ñaan yàlla toujours bu ma jullee képp ku yàlla narta faj sa soxla yàlla boo ma dégg te yàlla boo ma gis te képp ku ma dégg nag soxla boo man di am yàlla fexe ba nga dégg ma amal yëqin na soxla boobu nga ma déggee yàlla dana ko faj man ku ma ku ma ku ma dégg yàlla faj soxla waaye ku ma narta dégg yàlla du faj sa soxla bu la yàlla naree faj sa soxla dana la xabtal ba nga ooma te boo ma ooyee tamit sa soxla dana faju ak soxla bu mu mënti doon